ngay dellu ci sa mbokkum jullit mi nga xam ne gisoo ci moom dara lu war a tax nga ñaaw ci moom njort kooku jékki-jékki ñaaw ci moom njort moom sañee su ko xaruma min al muslimi maaluhu wa damuhu wa an tazunna bihi suu'a sa mbokkum jullit deretam araam na nga tuur ko mbaa laal alalam ak it nag ngay ñaaw ci moom njort di njort ci moom lu bon te gisoo ci moom dara lu tax nga war a njort ci moom lu bon ak addis boo wax ne man asaa bi axiihi zanna faqad asaahu bi rabbi ku ñaawal njort ci mbokkum jullitam ñaawal na njort ci yàlla boroomam ak addis boo wax ne xaslataani maa uutiyal maru xayran minhuma xusnu zanni billahi wa xusnu zanni bi ibadillah ñaari mbir yi daal yàlla joxul nit lu ko gën benn ba mooy rafet njort ci yàlla bi ci des mooy rafet njort ci jaami yàlla yi la ñuy xàmmee nag ne kuñ gis ci moom mu waral ñaaw njort ñaaw ga njort ga ayut mooy la addis boo wax ne man axsana zannahu binnaas tadarat nadaamatu maanaam ku rafet njort ci ñëpp ñëpp da nga reccu ba tàyyi ak addis ba ne ixtarisu min annaasi bi suu zann ay laa tatiqu bi kulli ahad fa innahu aslamu lakum والثقة بكل أحد حجز وقرائن الأحوال تغلب أحد الجانبين أليس بابا داني نغان دي موتا نيت ني تي ñaar ñort manam bu len wolu kenn ku ne tax wolu ñep ñep worut kon dañuy seet ka nga xam ne rafet njort ci moom moo gën ñu rafet njort ci moom nga defe ne nag bañ koo wóolu moo gën nga bañ koo wóolu ñaaw njort ci moom boo ko bàyyee sa alal mbaa sa waa kër mbaa dara lu aju ci sa bopp ci gàttal mënees naa takk ne yàlla moom dañoo war a rafet njort ci moom rekk ndax bu jaam bi baaxu ci moom mu baax ñaaw njort ci yàlla nag dal nekk kon lu araam rafet njort gi ñu sopp mooy sa mbokkum jullit moo xam ne gisoo ci moom màndargam maanu gisoo ci moom màndargam kàccoore ni nga ko gisee rek nga ko gisee kooku la gën mooy nga rafet ci moom njort ki nga sooyee ñaaw njort nag mooy ki nga xam ne siiwe na ak kàccoor akum bon ba noppi kooku moom la mu doon doon sa mbokkum jullit dagan na nga ñaaw ci moom njort li ci ëpp itam nit day umpale boppam umpalee sikki boppam day àgg ci am ay mbir yoo xam ne da koy rafetlu ci boppam di ko ñaawlu ci keneen wala su defee mbir rafetlu ko bu ko keneen defee moom mu ñaawlu ko loolu ak matadi la gu mata saafara moom lay wax naa wa daawi na nga saafara kullan képp ci yooyu bittihaami nafsika ci tuumaal sa bopp wa ahsin ta nga rafetal ak vann njort la bi xam ci ñoom nit ñi menin bihaami xawaaqibin naasi ngir lamut mujj nit ñi ilaa yowmal xiyaam bi bis penc ni ñuy saafaraa loolu mooy ngay fexe ba di tuumaal boppam lépp lu mu gis ci keneen mu nuru xeetu banque mbaa matadi mu tayal ko ci ak mat ba nag ba muy gis loo xam ne wóor na ko ne lii moom mënees koo tayal ci nenn mu baaxut la su boobaa nag mu def ca la ca shariha santaane digle ka aaye kem kàttanam muy jéem daal di tuumaal boppam ci matadi te di xoole mbindeef yi batub mat loolu mooy tax mu xeeb boppam fu mu toll jéem di gën a baax nit ñi itam xool gam leen di xoole ak mat day tax mu fonk leen wég leen te yàlla tax te loolu lépp gënal la ci moom ak mbaax la ci moom ndax dañu ne li fekk nga xam ne yaa ngi gis ak baax ci sa bopp booba baax goo boo demee nag boo gis baaxu keneen te doo gis sa baaxu bopp booba kon xamal ne baax nga wax naa laka fadlan maalam tara fadlan li nafsik wa ida raayta fadlaka fala fadla lak moom daal saa yoo demee ba gis matadi kenn rek delluwaatal ci sa bopp yedd sa bopp bu baax a baax jàpp ne rek ñépp ñoo mat ba mu des yow léegi yaa ngi gis matadi kenn rek xamal ne kon matadi googu mi ngi ci yow du tee nag nga jël balaasu shariha def ko muy balaas bi nga xam ne ci ngay peesee ci ngay peesee la rafet ak safaan ba ba nga xamee ne lii bu ko kenn defee ak nga def ko te fekk muy lu rafet nga xam ne lu rafet la bu dee lu ñaaw nga xam ne lu ñaaw la du lu rafet waaye foofu itam nag loolee nga gis ci shariha ba ne lu ñaaw la bu feeñee ci keneen da ngay seet ba xam mën nga koo taawil ci neneen lu ñaaw tam déet ba mu tëla ndax ci keneen la feeñ bu sa bopp nag moom nga àtte fi saasa ne lu mat a faj la daal di yedd sa bopp taxaw temm ci faj ko wax yi ni xaw naa gudd fii waaye ci gàttal rek mooy deel fexe ba di rafetlu mbiri nit ñi tey ñaawlu sa mbiri bopp loolu daal ci la sa njariñ nekk ndax li fi yaa ngi rafetlu mbiri nit ñi di leen fonk di leen jox orma di dooleku tuyaaba yàlla ak ngërëmam sa bopp itam li fi yaa ngi koy yedd di ko xeeb waaw nga jéem a gën a góorgóorlu di bëgg lu baax yàlla la gën a dimbale ci lu baax ba moytu nag bu baax a baax safaan ba te mooy di rafetlu ay mbir ci sa bopp dañu ko ñaawlu ci keneen mbaa ñeneen mbaa ngay rafetlu la nga jëf tey ñaawlu la keneen jëf bu ñu nee itam sa mbokkum jullit muy def lu aay te di ko fésal laq-laqalu ko mën ngaa ñaaw ci moom njort ndax loola la nga sañ a ñaaw ci moom njort kat mooy bañ koo wóolu ci sa bopp mbaa sa alal mbaa sa waa kër mbaa dara waaye ci ndax dana mucc bu ëllëgee ci àllaaxira wala déet moom da ngay rafet njort ci moom rek moom say boo rafet njort ci ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ndax ndegam ak mujj rek moo am solo te kenn xamagul ak mujjam nañ ko waxe woon mënees naa jóge ak baax mujjale safaan ba mënees naa jóge ak mbon mujjale safaan ba loolu moo tax nag ndegam nit ñi kenn xamul ak mujjam say boo rek rafet njort ci ñëpp ñëpp ñëpp waaye wadaawi na nga saafara taswifan néeg néegal maxa tawaaj yi ànd ak yeexamtalu wala xafati ak càggante ak istiraari akum looru fi zamaani ci jamono bi fikri ci xalaat fii xadaabihi ci bëggalam nga ak amul ngay aji metti maxa dem ci ëllëg waa fii naayimihi ak ci xéewalam nga al muqiim ngay aji sax ak it walay sa bu doon xaflati biir ñu doyam ak yëga bi ak jamihi naa walis boolem li nga xam ne nafaala dal na ko def siran ci lu nëbbu waxalan ak ci lu feeñ wa annahu ak naka moom muxaasibun aji xisaabe la alal fatil yi ci lu toll ne fatil wala seetru ko te du bàyyi basiran aji bàyyi aw xayoon wala aji neew boo yëgee ci sa bopp di yaxantalu loo mën a def ci lu baax ni naa xaar ba waxtu sàngam saw fa saw fa xasat na maa topp xasat na maa nàngam di yaxantalu rek sëgg ci bàkkaari naa ah danaa tuub de danaa tuub danaa tuub de dégg nag dégg ne loolu day mat naa saafara la koy saafara nag mooy di xalaat mbugal metti ma nga xamee ne mooy xaar yàkkat yi loolu ci bàkkaar ak di xalaataale nag xéwal boobu ba nga xam ne moom la yàlla xéwale ña doon rafetal ak sax ñu ñaawaloon te wëlbati bu toog di xalaat lu ko metti ma ak xewal bu réega yow yaa di ko xalaat dana tax jajju bàyyi yooy xam tanu di farlu ci lu baax ak it di fàttaliku ne yàlla kat boo gisee nim def doomu aadama yi daa mel ne li ñu def da koo naqadoot bàyyi ko ko te fekk na kat wax na ba tàyyi wa mallaahu bi xaafilin xammaa taamaloon yàlla yëgadoot ci li ngeen def yëg na ko bu baax waaye da koy xaaral rek waxtoom kenn ku ne am na buntu wax mënoo faa ñàkk jaar ba fa jaaree rek dana jëflante yow ba nga jàpp ne mel moo dong dong la ma sa sàkk sàkkutoon keneen ngay fàttaliku ne itam bu dee seet mbirum ab jaamam bu ca xeeb dara lu mu tuuti tuuti lu toll ne fàttiyin mbaa naqeer mbaa xitmiir lu dara tuut tuut toll ne aw sang lañ rek bu dee xisaab jaam bi daañu ko seet bu dee ñëw ñu fal ko ko de sofaan ba it noonu wa anna akthara siyaaxiin ak nafa gën jaa bari seen yuux xadan ci ëllëg fi naari ci biir sawara tawal la da juddoona min tasawufin ci ak néeg néegal ngay fàttaliku ne lépp ci ñuy dem sawara bu ëllëgee ñu dégg ñu yuuxu boo seetloo la waral dugg ga sawara ak la waral yuuxu ga wéesuwul rek daan yee xam tala ci def lu baax ak yee xam tala ci tuub lu bon soofa soofa xalsat na maa nangam xalsat na maa nangam rek di yaxamtalu di yaxamtalu ci bàyyi lu bon ak def lu baax ba day fekk leen te rek boo seetloo ñu ëpp ñoom waxu ci biir sawara yaxamtalu boobu rek moo leen ko yóbbee te lam toddee doo xam xel topp xaar ndax danga des ilaa xadin ba ëllëg wala taqdiru te doo attan zaali aliwu bi niki tey fii ci ëllëg faa jalan kon nag na nga ko gaawee doo ne nangam daal daa koy bàyyi ba ëllëg seetlu ne xamoo ba xam da nga dund ba ëllëgam déet seetlu ne xamoo ba xam bu ëllëgee ni nga ko mën a tey da nga ko mën a yoonaam déet seetlu ne itam bu fekkee ne waxtu ngay diggee bu ëllëgee am na loo ci waroon def nga bëgg ko booleeg li nga waroon def tey di ko yeexe ba boobu yaa yëpp nga bëgg ko caa boole ci waxtu woo mën naa am yaa yëpp ñu bokk yoonandoo yëpp ne kon bu ko dee seetlu na tax rek loo war a def nga def ko ci waxtu woo te nañ koo xaare beneen jamono fattarku kasbin bàyyi fàggu lit di xat tawakkuli ngir woote ak wakkirlu ci yàlla maxal tifaatin ànd ko geestu fexlu xumrin jëfi ak dof la bi ëpp ci mool yi dañ ciy teg in jël yi mel jublu koo firi ndéem daa feeñ fekk na nag galaa feeñ na wala feeñal na jalaaya juloo lañ ca miin jël ya moom bu ko doonee leel la yëpp firi maanaam kawar gu leel xëy na ko mënees naa jàng fi alu xumrin jëfi ab dof la mun jëlin ju di aji feeñ mun jëlin muy ismu faaxilam im jalaa yam jëli teew na li ëpp ci mool yi ni rek lañ ko binde in jëli ba tey jullit bi na moytu ne doyloo naa yàlla rek daal di fas ci ay loxoom jéemuta fàggu ba dema dem ba gisatul lu may yàlla moom mën naa fas ci ay loxoom bàyyi lépp ak yàlla waaye nag la ñuy bañ daal mooy fas ci ay loxoom rek ni moom wakkilu na ci yàlla ba ci sabab loonte te du tee mu yoqamtiku di geesu nit ñi ci nit ñi mën nañ koo jox mbaa mën nañ koo xañ li fekk daal mi ngi geesu nit ñi nga xam ne mi ngi gis mu bokkut ak yàlla rek mais sabablu la mu bëgg taxaw ci bunt ba la mu ragal ba tey di ko muslu ak a daw waa alam xamal bi ànd pas ba ci naka fàggu laa yu naa fii du dàqoonteeg tawakkulan wakkirlu ci yàlla laata ku bul nekk daa it laa fi di boroomu sànk dama war ni kat fàggu dàqonte wut ak wakkirlu maanaam wakkirlu teewut a fàggu ndax wakkirlu mooy nga jàpp ne yàlla ci boppam mooy sottal fàggu nag mooy ngay sabablu la nga bëgg di ko yootu la nga ragal nga di ko daw loolu nag boo ci boolee jàpp ne yàlla ci boppam rek moom li ngay wut moo la ko mën a may waaye wut gi moo mën la koo may la nga ragal moo la ca mën a musul waaye doom ji lu tax a mucc waaye su boobaa rek boole nga yaar yu baax a baax yu taamu ko leen boole noonu mooy sabablu ba noppi nag jàpp ne yàlla moom lépp ci moom la sa sabablu gi moom mënta sottal dara moo tax mu teg ci xasbuka war na laa doy min tawakkulin ci wakkiirlu an laa taraa nga bañ a gis siwaa rabbul waraa kudul borom mbindeef yi mu mujj dee risqika muy aji dalal sa wërsëg wakkiirlu moom nee na leen rek doole ji fekk mooy nga jàpp ne ci dëgg-dëgg daal yàlla moom moo lay wërsëgal nga xam ne ni ngay sawaloo nii moom du moo lay may yàlla ci bopp moo lay may nga xam ne kon dalaa dëggal rek sawaf la nga topp ndigal di ko def waaye ci dëgg-dëgg jàppoo ne sa pexe yi moo lay may yàlla ci boppam nga jàpp ne moo lay may moo lay wërsëgal li ngay def na muy sawaf la moom moo na ko digal rek loolu daal taamu nañ ko lool moo tax mu ne wal afdal la gën ak jam xu mooy boole ga li haasani ñeen wi ne yaa maxan boole seen waaye ata ak doonte dikkoon na fii ci moom xilaaful ak woote su meex goog déggeef na ko nee li gën daal mooy nga boole sabablu ak yënk ne yàlla nag mooy sottal kooku mu boole yooyu yaar doonte sax am na woote am ñu wax ne wakkil rek te bañ a sabablu moo gën say ba jàpp na rek boole yaar yëpp moo gën loolu nag li ànd foo gis naka yàlla rabata yeew na mooy takk na afaxaalafu ay jëfam dë ban ci lu sax xala sawa bi ci jub ga dafa takk ay jëfam bil asbaab bi ci sabab ya ba jaxla te mu def al asbaaba sabab ya xëy na xasalat ci wax bañ amee abwaaba fi alihi ñuy bunti jëfam bi ihkaamin ci ak xareñe sabata gu sax na warattaba te mu toftale baadahoo ci gannaawam milkahoo ak moomam xalaa tilkal xawaayidi ci yoone aada taxaala kawe na moom yàlla waxalaate mu kawe li tax ñëw boo leer it moo gën sawul ba noppi xam ne yàlla ay sottal mooy lu ëpp ci jëf yi yàlla jëf bu ko neexoon lu ne jékki-jékki am waaye lu nekk da koo takk ci sawut muy bunt boo xam ne soo bëggee mu defal la loola nga jaare ci bunt booba léegi boo bëggee am mbay dangay wut ab jiwu wut ab tool ji ko di ko toppatoo nag te bàyyi yàlla nag bu ko soobee rek nga am mbay boo bëggee doom nga seet soxla soo xam ne am nga ca yaakaar takk ko jaaram moom fa nga xam ne fa la ñuy jaar ak soxna te yaakaar nag yàlla may la doom xam ne lu nekk daal yàlla wutal na ko buntu boo xam ne boo ko bëggee ci ngay awee bu ko defee nag bu ko soobee mu jaare ca defal la laa leen nga bëgg bu ko soobee itam nag la nga bëgg doo ko jaam ndax moom sama si ko defee muy buntu ku bëgg ñëw jaare ca rek sama si ci waaye jëf gi moom ci dëgg-dëgg mooy sottal mën naa jëf ci kaw sawab mën naa jëf ci lu sawab waaye nag sàmmoon teg sama sama mooy teggin mooy fukk la man képp koo xam ne yett lu dana sàkku min wu ci yàlla fi'lan jëf min xëyri baa def julul buntam ba maa joote mu yaakaar al was la àgg ga faxad apaakoon dikkee na jaxaran ci lu bir bi suul adabi ñaawuk teggin maha ilaahi yi ànd ak borom ba wa faqadil arabi ak ñàkk aajo ja dina boo bëgg yàlla defal la nangam te jaaroo ko ci bunt bañ koy sawabloo ah yàlla di mën na ko mën na koo xañ itam waaw dangam jaaroo ci bunt ba mën na koo xañ te it ñaawal nga teggin ndax dangam moom daa waxam ne ku bëgg nangam na jaaree ci bunt sàngam te jaaroo ci bunt ba bëgg mu defal la loola kon day ñaawal nga teggin te bu ko soobee mu xañ la loola ba noppi nag nga boole ca noonee nga ñaawale say teggin waaw maa bi ixtilaafihim bërëb bu seen wuute nag fil afdali ca ka gën min tey nit ñi ne yaar yaa ixwaan yéen samay mbokk muy maalam yaxsul li fekk amut taxadurul asbaabi gàntalu sabab ya de ama in tabata ndaal ndem sax na fa aw jaba waral nañu al awal aji jëkk ja in lam yaltafit ndem du geestu lil xalq jëm ci mideef yi wa suxti ak mer wa bi tashawufi ak waqamtiku wa bi te dab dubil xijaa ak ci deng deng xel wala asafi ak njàqare ba ñu wute nag ci sabablu ak ñàkk sabablu lan moo ci gën te la waxoon léegi ne sabablu te jàpp ne yàllaay sottal moo gën am na koo xam ne moom bàyyi yàlla dong la man te loolu mooy su fekkee ne mbir mooma amoo fenn foo ko mën a jaar nit mbir moo xam ne amoo ci nen moo ci mën a sababloo rek bàyyi yàlla moo ci des ba tey itam nag bu fekkee am nga ci loo ca mën a sabab la waaye sa gëm moo àgg ci gisatoo lu mooy yàlla nga xam ne yow doo geesu menn mbindeef doo mere menn mbindeef doo xamtiku di séentu ndimbal ci menn mbindeef sam xel du déng-déngi doo jàq doo tiit doo raf ndax jàpp nga ne kenn rek fi nekk ak jëfam loolu moom mooy dëgg waaye gëm ko daa bokkut ak melowoo ko gëm ko daa bokkut ak dund ko ki nga xam nag moom daa gëm ne kenn rek fi nekk ak jëfam te mënta gis lu may moom te lu yàgg-yàgg du geesu mel ni mu ndeef ci genn wet ak kooku moom mën naa wakkiirlu fii tam yàlla rek bañ a sawlu ci genn wet waaye li fekk àggul foofu nag moom sëy ba mu jéem a boole yaar yëpp mooy boole sabablu bu noppi nag xam ne yàlla ci boppam mooy sottal sabablu bi ci boppam du sottal ba tax mu teg ci wa in yëkkun dem dafa nekk moo ko fi di aji geestu di lii ci yile fa xadd taayana kon ràññi ko na aljamhu boole ga na daa ahli rachadi fa ñooñ jub ga te waxu moom boole yi boo ko xamut faraaxul xal bi mooy feexul xol ba min haa ci sabab yi nit di gaal di ngir wakkirlu ci yàlla maxaa mu baax suratiha ànd ak jonjonteeg sabab ya lil imtisaali ngir topp ndigal li ànd xoo ngir naka yàlla amara moo digal xibaadaxoo jaamam ñi buñ ci daal ci daw min sababil xalaaki ci sababi alpande wat diraari ak lor li sababi salaamati jëm ci sama bas mucc fajji tan ni ban na kon nag na nga moytu moo jibal malaamati aji waral yaraange bu fekkee nee na ba léegi yaa ngi gestu mbindeef yi nga xam ne ni nga gëmee ne yàlla dong moo fi nekk ak jëfam taxul na nga dund ko du tee yaa ngi gestu mbindeef yi ba ba nga leen di mere ci ak wet ak a séentoo ko yoqamti ko li fa yaa ngi jégloo sa bopp rek say boo boole yaa yëpp mooy di sababoo ba noppi nag gëm ci sa xol ne yàlla ci boppam mooy sottal ba tax mën na boole gi mooy sa xol ci boppam moom yëngkul ban sabab ne lii mën na laa may dara dara dara waaye teewul nag yaa ngi jonjonteeg sabab yi maanaam lay tax am ci bu fekkee da nga bëgg yaa nga ca lay tax a mucc bu fekkee da nga bëgg a mucc yaa nga ca waaye nag jàpp nga jàpp ci sabab mucc ak am taxul nga jàpp ne loolee mën na laa musal mbaa mën na laa tax a am sa xol la nga jàpp moom mooy yàlla ci boppam mooy musal yi mooy amale li nga jàpp ne sabab nag moo la ko digal rek ndax maa wax ne la bunt bi kat ku bëgg ma defal la nangam ci war awe ndax yàlla moo digal jaam ñi ñu daal lépp luy andi alkaneeg lor bu fekk moom suñu boroom moo ne xudoo hidrakum jàpp leen seenu wattandiku moytu seeni noon ak bam ne wala tulqoo bi ay diikum ila tahluka bu leen def lu leen di yóbbe alkande te fekk na moom mooy musalee loolee loolee jaam bi daw mel ne mën na ko alak mbaa mën na koo lor du dara yàlla ci boppam mooy alage mooy lor waaye nag mooy digal jaam ñi loolu ndax bëgg rekk ñu sabablu waxoo moom sax firaarul ak daw dong la yaa ax yow sama mbokk min qadari rabbil wara tukkee ci dogalu boorut mi dee fi li misli yi jëm ci am kemam dong bil xadari ci wattandiko nee na booy daw lii jëm ca lee yaa ngi daw ab dogal jëm ci dogal dong li ngay daw yàlla la nga daw jëm di ci làqu itam yàlla dong la dara génnu ci yàlla ak ay jëfam ak soppandikoom loolu nag boo ko jàppee noonu rek dara nekku ca kon fa takassab na ngay fàggu zahiran ci zahir imtisaalan ngir topp ndigal wastaslim te nga wamatu baatinan ci biir ittikaalan ngir wakkirlu ci yàlla ndax fa innahu naka moom yàlla musabbibul asbaab yi mooy aji sabab sabab ya fa siq na nga dëgërlu bii ci moom ak dëxëra ci jëpp jamono waqif na nga taxaw bilbaa bi ca bunt ba li jam yi ngir boole ga bayna sharhi diggante sharia wal xaqiqati ak xaqiqa waxoo moom istiqaamatul fata mooy jubuk cam sa xaqiqatan ci dëgg-dëgg kon nee na da ngay sabablu ci zahir xam ne yàlla la ko digal te ci biir sa xol nag moom nga yenk yàlla kese xam ne sa sabablu gii mën laa may mën laa musal ci dëgg-dëgg rek yàlla mooy maye mooy musale ndegam yàlla moo tëral sabab yi mu ay bunte ni aw leen ci bunte boo ko defee rek yaa ngi ci teggeen te it boole nga shariha ak haqiqa mooy boole nga zahir ak baatin te loolu moom ci dëgg-dëgg moo di jub mooy yoon wa li amal ixlaala ngir naka xëtt ga bil awali ci aj jëkk ja yowaat bu def na ko lim zandaqatan muy ak zandaqa xëtt ku njëkk ci mooy ñàkk a sabablu ndax day mel ne kon nañ ko xewoon ci gannaaw koo xam du jëfandikoo shariha dañuy jàpp na rek moom sindiq la maanaam day woote maanaam dañuy jàpp ne daal ku nanguwut a jàpp ci shariha muy attey zahir yi dafa mel ne day woote rek ak gëm yàlla waaye ci dëgg-dëgg ak kéefar la ëmb ca biir ñàkk a sàmm nag shariha ba mu doon ak zandaka mooy su fekkee ne waaja dafa bàyyi digal yi defu ko ba noppi def la yàlla tere kooku bu ne gëm na itam dañuy jàpp ne rek daa feeñal gëm rek waaye ci dëgg-dëgg kéefar moo nekk ci biiram ñàkk a fàggu nag fàggu teefu àdduna bu fekkee ne daa fekk am ay wari gar yu gàddu ci loosam ni ki am na njaboot goo xam ne mooy li war a dundal ba noppi nag nanguwut a fàggu fàggu teefu àdduna boobu kon xëtt na shariha dana amee àq itam ñooñu nga xam ne ñoom la waroon a taxaw te taxawu leen waaye loolu nag du àgg ci ak zandaka dana gàddu nag bàkkaar ci ñooñu yàlla gàll ci aw loosam mu waroon a taxaw temm ci yor leen na ko yàlla digal di def ko foofa lay gàddoo bàkkaar wattaani xët ku ñaareel ki shirkan daañu ko tuddee ak bokkaale laa fanada amul benn xeetu fen ci jooju wax xëtt ko ñaareel ki maanaam mooy xëtt xaqiiqa xaqiiqa mooy nga jàpp ne ca dëgg-dëgg mbir yi lépp lépp yàlla li nga seen ci zahir du ca dara loolu mooy xaqiiqa su jàppee nag ne wut ga mu wut moo koy tax a am mbaa daw ga muy daw moo koy tax a mucc bàyyiwul xel ne yàlla kat mooy amale mooy muccale comme loolu xëtt na xaqiiqa loolu nag kon xeetu shirku la maanaam xeetu bokkaale la ñàkk sellal tawxiid la balaa tawxiid am rek nga jàpp ne yàlla rek mooy sottal waaye sawalu gi moom du sottal dara dara soo jàppee na ne sawalu gi mën naa sottal rek shirku ak bokkaale daal di dugg kon ñàkk a sàmm shariha ñu koy wooye ak zandaqa ñàkk a sàmm xaqiqa xaqiqa mooy nga jàpp ne te dëgg-dëgg lépp yàlla loolu nag boo ko sàmmul rek kon ak bokkaal daal dëggu wala dul amali doomi mébét tarku tawbati mooy bàyyi tuub wa qaswatul ak kookol wa kasalul ak tayeel wa xoobatul ak bakkaar mébét ak moom nee na mat naa moytu maanaam jàpp ne da nga gudd fan te loo amut mu ngi ñëw loolu moom day taxa bari ay bàkkaar néew ak topp yàlla day indi xol boobu ak uk tayeel ndax ki jàpp ne moom gudd fan danay jéem a far danay jéem a farlu ci gaaw def lu baax bala mu ko raw danay moytu bàkkaar ndax bañ dee ci bàkkaar waaye ki jàpp ne moom dana gudd fan te lu mu amutoon mu ngi ñëw moom lu mu war a def rek ci lu baax ne na ko bàyyi ba waxtu sàngam bàkkaar da koy ñemee lool ndax day wax na rek sama dund des na danaa ko mën a tuub loolu moo tax guddi mébét moom loolu rek lay indi wax wa moom yu addiika danay àggale yu addiika mooy cosaan li tarkil fardi jëm ci bàyyi farata guddi mébét baaxut ndax day tax nga tàyyeel ba lu ñu farataaloon ci nga def ko nga bañ koo def mbaa lu ñu araamaloon nga song li ko def fekk na mébét yi guddi rek moo indi tayeer gi ba indi bàyyi lañu dégle mbaa xëtt lañu tere wayu fuddi te muy àggale li tawa xumin jëm ci ak defe li rux si ñeel ak yolom maanaam ñeel yombuk mbir yi bu xasee guddi mébét day foog ne mbir yi moom lu yomb yomb la lu woyof woyof la dana bari lu mu woyofal loo xam ne guddi mébét gi rekk a tax waaye su xamoon dee ni mu ko jegee dana bari lu muy woyefal te fekk na dana ko wóor ne lu diisa diis gann gann la am bari na lu nit di woyefal dara war na ko lu may jàpp na rek ak dundam des na waaye bu jàppoon ne tey tey tey lay génn àdduna moom bari na woyefoon ci moom te day sotti ku diis gann fi wetam guddi ñu rek lañu ne moo baaxut waaye jëmmi ñu dog ci boppam na ko addis ba waxee yërmaande la ju bàyyi ko ci yàlla ndax bu fekkoon ne lu amul lu ne dangay naagu ne lu yàgg-yàgg doo ko am mukk mukk kon dund gi day naqari lool kon kenn du defati dara